loolu la laaj ba xam nañ koo yëg ci bis. yàlla ko yàlla may ndam laa koy ñaanal. waaw. ay musique moom deuxième la rek. man maa dégg ñu waaw moo tax. solo waaw. naka nga ko gisee. waaw alhamdulilah waaw. alhamdulilah. kenn du ne amul doole. ne. mun na tuuti. mais kenn du ne am amul doole. <laughs> waaw. yàlla dogal ñun bu ñu ba ñeme di xam. di di di góorgóorlu ci entraînement yàlla def na ci moom béy na ci waaram baax suñu ngore. kenn kan wax ci yéen ñaar. ñëpp ngay waxal ñëpp ngay waxal waxal. waaw kon Téma Touré nii. séddale baax na. waaw loolu daal yàlla def parce que tamit borom xol bu rafet la dëgg yàlla amul benn problème amul kenn xaar ma yàlla ku cam combat mi ngi lay taxaw. du ma la wax loo koy conseillé. mais tey bés bi lan laa lay wax lan la laaj ci côté ndaam rek la laaj. Bébé Diop ñu muy bëree kenn du ci naataangoor ku dee ak lan moo waral lool parce que gis nañ euh, moo mën naa ne est-ce que jiituwul la ci làmb. waaw moo tax ma ne la tey waroon naa mën a bëreeg ay ay ay ay ay ay ay catégorie yi nga xamante ni mooy parce que bu nekk catégorie papa a la ñu woon. Balla Gaye ñoom lañ bokk génération te yoon na tey nga déggoon fi tey moom mii Mbaye Gueye ak ay Modou Lo mais yàlla ak dogalam jaam ak pexem yàlla moo namoon ci moom lii rek mais dafa yoru xolu mbër nag loolu moo ko sonal. waa moom jàpp na ni moom ku moom nu mel moom la ñëpp mel. mu xeex wala mu bëri. na bëri dóor mais xel. waaw loolu dong la. war nga koy daal. moo ñu gën a xam li li muy bëri. waaw ñu mais foo toll yow foo toll. ci lii lañ rek. waaw non moom xam naa ne. Mbengue Junior moo la fi andi mais Sa Thiès ay victoire am ñoo daal Moussa Ndoye ak manière mais boobaa ak léegi entraîné di denc jëmale kañ. dañoo nekkoon ci combat wax dëgg yàlla combat wu lañ da mu weesu weesu na nag peut être dafa amaat ci leneen lu ñu nekkoon muy jafeeru paa bi alhamdulilah na passé na mais yàlla baax na du yàgg dara incha allah di ngeen dégg combat yi. mais fi mu toll nii a wax ñu adversaire ñu ci bàyyi dañ ne Sa Thiès bëgg moo tax problème parce que lu ci ëpp na man maa amoon ci lu ma nekkoon mënu moo nekk ci dugg ci ay sujets yooyu moo tax mais alhamdulilah pare nañ ci ñi après. waaw man ñi ngi déggante tout temps waaw maa ngi déggante ñëpp. <laughs> non non daal daal ci luñ nekkoon. daal ci luñ nekkoon. dëgg yàlla pare nañ ci waaw. ci li nga nekkoon dafa am ci luñ nekkoon suñu vie privée ay waay tamit. gi ci bàyyi nag nee nañ dañoo woon jël avance ndax boo jëlu avance toog xaar ba rëgg a génn guy gi. su ci amee ndam moom moom moom da am da am soxla moom. xam nga lan moom lan moo lan moom solo. tànk tànk kanam. tànk kanam dafa am solo. boo dee bay sa li ëpp soo li gën a bon nag mooy yaa ngi bëre gisoo sa bopp li ngay def loolu rek mooy l'essentiel bi. yaa ngi bëre te gisuloo sa bopp ci li bopp ci li ngay def moo amul benn sens man maa ngi sant yàlla baax a baax a baax man amul problème adversaire amul problème kase yooyu. mais Sa Thiès du yoon nag nga bëree ci ci athlète bu tol ni yow nga bëree boobaak léegi loo jël avance sa morom yaa ngi bëree nga toog di xaar. man bu doon sama bu bu bàyyi nañ tey nañu woon Garga Mbossé mooy sa adversaire te Garga mu toll nii est que dawul. <laughs> non non donc <laughs> daal di doole rek. daal toog xaaga ba mu ñëw. non man damaa tal loolu. man dara ma loolu maa ngi ci ma lambe gi fii di yàgg dara incha allah di ngeen xam sama adversaire di ngeen ko gis te dañu signé suñu contrat loolu daal laa la mën a gàttalal xam lu ci des nag ay débat mi ngi entraîné wala mi ngi def lii wala mi ngi lee amul benn sens nañ toog déglu xoolal hmm. incha allah yàggu dara. Ah,